asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di dalal ci seen émission tribune politique fii ci Sénégal 7 tey nag ñu am mbégte di dalal Zator Mbaye Zator nekk responsable des jeunes de benn Bokk Yaakaar en même temps ministre conseiller auprès du chef de l'État ñu fas yéene waxtaan ak moom comme ni koy defee saa su ne ci lépp lu aju ci wàllu actualité politique rawatina nag élection présidentielle bi ñu dégmal le 24 février 2019 Zator Mbaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax euh, Thior di nuyu sa équipe bi nga àndal di nuyu également internet yi ñuy seetaan yëpp euh, di am mbégte ci dalal leen fii pour ñu waxtaanee mbirum réew mi ak mbirum askanu Sénégal. tout à fait euh, monsieur le ministre ministre conseiller nga comme nañ koy waxee sànq euh, en même temps gis nañ ne Macky Sall tabb na lu toll ci fanweeri ministre ak juróom-ñeent muy 39 ministres conseillers est-ce que mën nga ñëwaat ci lan mooy seen seen seen mission boobu ak nan naka ngeen koy doxalee daal. xam nga ñun euh, ministre conseiller daanaka suñu mission du mission fësal ndax euh, kilifa gi nu tab moom la ñuy liggéeyal directement dans le secret bien sûr du cabinet parce que ñun ci cabinet président de la république la ñu bokk rôle ministre conseil nag euh, mooy léegi-léegi sur sur des points précis nga mën a xamal kilifa gi li nga ci xalaat jox ko sa xalaat ndax nag ma jàpp ne moom rek moo am pouvoir décision donc léegi-léegi moom tamit mu soxla la wala sant la benn mission nga dem doxal ko ko ñëwaat toog et je crois que liggéey ci wetu président rek dafa doon loo xam ne lu ama am solo la ndax Sénégal nag buñ dee quatorze millions sénégalais nga ni tabb nañ fanweer ak juróom-ñeent gëw ma sax ne nombre bi yàgg na foofu mais même su fa yemoon jàpp naa ne quand même doon na lu am solo ndax président de la république li mu am ci charge sur le plan national sur le plan international jàpp naa ne sur question bu nekk war na mën a am ñoo xam ne euh, war nañ ko ci mën a jox seen xel. mais bu ko defee nag moom mu dajale xel yi xalaat yëpp ba pare nag moom daal di jël décision bi nga xam ne yaakaar na ne mooy décision bi. mais mais mais est-ce que loolu ëppul ci dëkk bu mel ni ci réew bu mel ni Sénégal ñu ne réew moo xam ne réew mu sous-développé la nga teg 39 ministres euh, en dehors des autres ministres qui sont des ministres avec portefeuille ak ñeneen ak ñeneen. xam nga tubaab dafay amul prix mais am na coût. am na njëkk c'est-à-dire euh, lépp loo gis rek Sénégal tey dëkk bu comme ni ñu ko waxee c'est dafa bokk ci dëkk yi gën a ndóor raison pour laquelle justement amul loxo bu ëpp ci li nga xam ne mooy dox réew mi xëy na le fait que sax muy tabb nit mu bëri. di leen liggéeyloo dana am lu bëri loo xam ne dana ko. wala boog tabb leen pour caser leen parce que ñu bëri jàpp nañ ne dañ la tabb ci mel ni yow ak ñeneen ak ñeneen pour caser leen parce que yaa ngi woon ci douzième législature bi tey jii nekkoo ci treizième législature bi jéem a chômer tuuti ñu jël la tabb la ministre conseil. non xam nga nag euh, ñun ay citoyens sénégalais lañu ay serviteurs de la nation lañu tey ñu ngi fii suba ñu ngi fee jàpp naa ne euh, y' a cent soixante cinq tey y en cent cinquante. c'est un privilège de servir son pays nit nag boo nekkee di assumer ay fonctions publiques war nga mën a pare ci fépp fu la yóbbu nga dem muy exécutif muy législatif muy suba feneen ak feneen euh, foo xam ne war nga fa mën a amal sa réew njëriñ sama ci sama jàngat du jàngatu recasé ma jàngatu euh, implication de maximum de sénégalais dans la construction nationale parce que li nga xam ne ne nii mooy liggéey Sénégal jàpp naa ne benn loxo ëpp ëpp ci. yow mi tey président sañ na laa woo suba ne la ah man kat soxla naa sa xel sa xalaat si la nga xam ne nii mu jëm ci wàllu presse nga joxe ko xëy na mu ah yow kat sa xam-xam neex na ko mu xëcc la teg ko si wetam parce que nag jàpp naa ne yore réew du lu ndaw du lu tuuti képp ku fi juddu yaay responsable képp ku fi dee yaay responsable lu fi baax yow la lu fi bon yow la kon jàpp naa ne euh, c'est une responsabilité très large bu nga xam ne. quel que soit le nombre de collaborateurs bi nga mën a am pour mën a assumer euh, cette responsabilité haute là jàpp naa ne doy. mais est-ce que mu ngi leen di may nopp ki nga xam ne moom mooy président de la république parce que gis nañ fi dossier yu bëri yoo xam ne ñu bëri jàpp nañ ne dossier bi daal dossier yi jaarul koy conseil ni mu waree est-ce que mu ngi leen di may nopp bëri na gis nañ fi dossier Khalifa Sall gis nañ fi dossier Karim Wade dossier ah xam nga euh, sëñ bi nag yaaw yaa ngi wax loo xam ne du doy waar ndax boo dee am na dossier yoo xam ne jaarul yoon yaa ngi indi problème ñu bëri jàpp jamono jii ni may wax yow. man bëgguma wax waxee lu bëri man dama bëgg lépp lu ñuy wax mu doon lu ay éléments yu factuel. Mm, da nga jàpp ne jaar na yoon dossier yooyu. non xam nga lu ma jàpp dossier la ñoo xam ne ay nit lañu yu am maille à partir avec la justice justice sénégalaise moo àttee dossier yooyu fii ñuy waxee nii boo demee tribunal mu nga fees del lépp li nga xam ne mooy ay tribunaux ci Sénégal heure bii y a des milliers de sénégalais yoo xam ne ñu ngi défilé ci kanamu procureur yi. kii parce que dafa jël euh, xaru jàmbur kii dafa jël béy kii dafa sàcc cinquante mille kii dafa tooñ diw et cetera il faut pas que ñu foog ne Sénégal ñu ñuy def politique ñoo ko moom déedéet nous sommes une infime minorité boo xam ne euh, ñu ngi ci Sénégal dëgg la xam na ñoo ci bëri ñoo ci ëpp coow. ñun ngeen di gën a tàllal seen micro et cetera. cas par cas nañ jël cas cas Khalifa Sall bi nga xam ne peut-être dinañ ci ñëwaat tuuti ci li amoon maire bu Ndakaaru mais dossier boobu gis nañ ne laata xalifa Sall am na ñu fi jotoon jaar nekk ay maire lan moo war a ciblage boobu moo tax ñu ne xëy na dossier bi. amul mais amul ciblage inspection générale d'État euh, c'est un de contrôle dafay dem ci ay institution di saytu liggéey bi ni mu tëddee bu saytoo ba pare yow mi nga xam ne yaay maire dafa lay jox rapport bi ne la ah lii laa gis ci gestion bi. loo xam ne baax na loo xam ne war nañ ko joyanti loo xam ne war nañ ko jubanti bu la ko joxee yow maire yaa naan ah d'accord naa d'accord naa lii ma li nga d'accordul nga indi say say say réponse con con contradictoire loolu rek a xew euh, ci ville de Dakar loolu moo xew ci ay maire yu bëri comme ay maire yu Pikine maire yu Guédiawaye maire yu Kaolack maire yu bëri nañ ah, du rek maire de Dakar. moom li ko wutaleeg ñooñu moom c'est un candidat potentiel c'est pas ça li ko wutaleeg ñoom mooy ñeneen ñi c'est des fautes yoo xam ne. c'est des fautes jugées administratives nga xam ne dañuy dem chambre chambre administrative. ay fautes yu garaaw. ay par exemple euh, dépassement de carburant wala ay fautes yu garaaw. dafa garaaw. mais lii dafa doon y a du faux c'est-à-dire euh, ñi doon suivre procès bi gis nañ ne am na li ñuy woowee ay fausses factures yoo xam ne dañ ko def maanaam tey pour nga génne xaalis jarul nga ne damay jënd ginaar te jëndoo ginaar wala dama jënd dugub te jëndoo dugub. mais mais li ñu bëgg xam ci côté boobu justement est-ce que loolu moom moo ko njëkkee li nga xam ne moom mooy. Euh, problème bi tu tu poses mal la question parce que problème bi du est-ce que moo ko njëkkee. xam nga bàkkaar ba yàlla sàkkee àdduna ba léegi dafa ne sàcc fen njaaloo bàkkaar la c'est pas parce que nit ñaa ngi koy def que dafa daggantee tey ça c'est pas le bon la bon question tey boo ñëwoon tey sàcc sama 100000 francs nga génn saraxe ko ci jàkk ji taxul kon da nga jàpp ne dossier bi daal maanaam jaar na yoon daal. non mais man li ma ci mën a téye man nag je suis un citoyen respectueux des lois de mon pays ñi nga xam ne ñooy àtte muy le pouvoir judiciaire may nañ leen nopp àtte nañ ko benn yoon àttewaat ko ñaar yoon li ñu génne ci àtte bi yëpp mooy gis nañ ci rëq-rëq yoo xam ne luubal alalu askan wi daf ci am te loolu ñëpp teg nañ ci seen bët jàpp naa ne kon man. il ne m'appartient pas man je suis doxalul yoon. am na lu ci CEDEAO wax également loo xam ne ci anam yi ñu ko àtte également am na ay rëkk-rëkk. CEDEAO li mu wax mooy bañ ko jàppee police dañu waroon permettre mu indi avocat. mais loolu justement defuñu ko. dafa nekk euh, article cinq je pense du du la de la C CEDEAO ndax man mii bokkoon naa ci député yi nga xam ne bi ñu indee code pénal ak code de procédure pénale di di ci dugal loolu indi woon na coow lu rëy ci assemblée nationale parce que dañu ne woon sax. est-ce que ñun lii nekk na lu gën parce que des fois nga jàpp ay délinquants yoo xam ne ci wàllu terrorisme nga indi leen seen avocat juste à l'interpellation dana mën a indi fulu ci enquête bi est-ce que duñu bàyyi ba police def li mu war a def ba pare ak gendarmerie officier de police judiciaire de manière générale avant que ñuy indi avocat parce que ñëpp xam nañ ne avocat yi bu ñu duggee ci procédure yooyu c'est pour dire client bi bul wax wala waxel lii wala waxal lii xëy na des fois dëgg gi du feeñ au, au niveau de, du, du juge d'Ambakadji que élimine na n'est-ce pas cette première étape qui était la phase de l'enquête préliminaire parce que jàpp nañ ne dans ce cas précis xëy na ñu ngi naan procédure baa ngi tàmbali ca bi procureur tàmbalee def son son réquisitoire te jàpp naa ne toutes ces formes ont été respectées mais dans CEDEAO ne bi mu nekkee député waroon nañ ko bàyyi parce que amoon na immunité parlementaire ñeneen jàpp ne loolu warul woon a mën a nekk mais loolu fekk na béy wooyu mbuus parce que mi ngi woon toujours dans les liens de la détention maintenant CEDEAO dafa indi une réparation pécuniaire maanaam Khalifa ak ñoom ñi mu àndal war na leen fay 35 millions te bu ñu fàtte ne rek euh, du Khalifa rek ah Khalifa ak ñi mu àndal am na ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi ci biir euh, te duñ leen faral. justement xali xalifa moo tax jamono jii ñoo ñu dund li nga xam ne moom mooy euh, calvaire bi ñuy dund parce que moom moo fi am ay ambition politique yoo xam ne fësal na ko. daanaka si jëmam ñëpp jàpp nañ ne kii war na mën a doon président moo tax tey jii ñu roof ko galgal. amee ah, kan moo ko roof galgal moo galgal boppam. ci ci na ci naka. mais yow nee nga weer wu jot da ngay jënd dugub kan moo la koy jaay nga ni diw ñu dem ci kooku kooku ne moom xamula mosula jaay dugub dugub bi fu ma ko jëndee fan nga koy denc nga ni diw ñu ñu ne diw ndax yaa denc dugub mu ne arab waaw fan la galgal nekk foofu xam nga nag Sénégal aussi tànk day tàlli wala mu banku cest à que tey si tey. weer wu jot nga ni quinze millions dugub quinze millions euh, ceeb lu tax ceeb dugub loolu jaaxalu la parce que ceeb dugub boo ko jënd doo fay TVA quinze millions yi bu doon dañ ko nee quinze millions dañ ko jëndee leneen dañ ci tekk 18 pour cent su boobaa 15 millions yi day wàññeeku mais dañ ne 15 millions dugub 15 millions ceeb ndax loolu amul TVA donc day mat sëkk trent millions waaw kii ne man maa yëkkati trent millions di la ko jox par ko. est-ce que nit dégg na le meer nga xalifa mu weddi benn yoon ne man musuma ko jël kenn kenn kenn déggul wax ko parce que quand même il est honnête vis-à-vis ba mu commencé nekk meer bi koy jox xaalis boobu sax wax nañ ne dafa ne woon xaalis bi du ma ko laal ndax moom xamoon na ne wala njortoon na ne lii warta mën a leer weer wu jot bu yëkkati fanweeri million jox la ko euh, ci noonu rek euh, je crois que quand même euh, jar na xalaataat Karim gis nañ ne candidat la parce que waa PDS moom lañ tàbb jamono ji euh, li nga xam ne moom mooy mouvance présidence bi def na lépp ba mu génn réew mi boobu ba léegi ñëwagul ñu disqualifié ko ci euh, liste électorale yi loolu xanaa war nga ci am jàngat. xam nga yow journaliste nga gisagoo fi photo boo xam ne dañu mën a teg Karim Wade wala ñu jënd ko wala ñu escorté ko génne ko Sénégal amu fi. mais anam yi mu génne it lu. anam anam ban anam la génne. génn guddi euh, guddi boo xam ne ay. trois heures du matin quatre këram ñaata prisonniers ñooy génn fii boo demee léegi taxaw buntu prison centrale ñu bëri ngi génn parce que am na ñoo xam ne bu leen. duñu duñu ay citoyen ordinaire comme man. non mais citoyen ordinaire mooy lan lan mooy citoyen ordinaire. on est tous on est tous libres et égaux devant la loi ñoo yem képp boo jàppee ne yow moo la ëpp ay martaba ci réew mi man jàpp naa ne ëppaloo mu dara ci réew mi sama ndey sama baay fi leen dara la mu ëppalewul buñ la tëjee bàyyi la kenn gisagul photo buñ ko tëj buñ ko jëngee wala ñu mën a ko génne ko réew mi waaw bu fekkante ne dañ la génne réew mi te nga ne yow dara teewlu ci biti boo ko teree de dellu si. teg fi CREI yi euh, CREI yi xam nga lan mooy mission mais bu ñu ko tegee comme ni ki kaa euh, Khalifa Sall yu moom rek lañu fi jot a créer problème institution est ce que loolu tamit xawul louche. CREI yi du lu bees CREI yi depuis 1980 la woon. mais pourquoi Karim Kese. non CREI dama ne CREI du lu bees. CREI am na ñeneen ñoo xam ne gëstu woon nañ seen i mbir bu yàgg. CREI fi la nekkoon li fi Abdoulaye Wade nekk yëpp CREI mi ngi fi. mais kan la fi CREI daan justement loolu la. Sénégal mais da nga koy dem gëstu ji. parce que CREI am na ñu bëri ñu mu daan. mais loolu monsieur le ministre justement. mais bi ñu egsee 2012 CREI. Euh, mission essentielle du woon mission essentielle am CREI dañu ciblé ay nit ñu nga xam ne dañ leen waroon topp ci seen am-am dama jàpp ne dama la bëgg fàttali nekk Karim kenn audité wul li mu liggéey Sénégal. audité wuñ ko de dañu ko ne yow mii yaa ngi fayeeku masalan million xayma nañ li nga am lépp toll na si ñaari milliards kaay nga wax ñu foo ko jëlee loolu leer na de parce que tey boo fayeeku million xanaa di nga lekk di nga naan di nga dimbali say mbokk di nga fay lu yaas waaw noo mën a amee ñaari milliards ci diiru nangami at gis nga tey bu la douane jàppoon nga fraude yow mi fraude yaay indi la preuve ne lii ngeen ma jàppee maa ko moom mais bu douanier mooy génn preuve bu wane ne yow da nga fraude mais foofu mooy liste bi yaatu woon na trop avant ñuy commencer la traque mais moom kese lañ ci jot a teg loxo loolu tamit waaw la ne ñeneen ñi li ñu jëloon damuñu loolu loi bi loolu c'est la képp bu nga xam ne def nga médiation pénale loi bi daf la protéger parce que loi bi day bañ ñu génn sa tur wax ne yow nii ameloon nga askan wi dem nga delloo donc mais moom Karim Wade justement moom lan la delloo parce que. mais delloowul dara. Ah, la la delloo. mais kon est-ce que combat boobu amul jëriñ kon. est-ce fu Karim delloo xaalis. dégguma ko ah voilà moo tax. comme delloowul moo tax mu tëdd. tëdd na tëdd na penam ba penam xaaj. président may ko grâce ça c'est la loi. parce que bu nekk président may grâce ñu bëri surtout grâce moom c'est c'est tous les sénégalais yi nga xam ne jàpp na leen ñu ñu tëdd lu toll ak xaaju seen pen. président sañ ne leen a may grâce. ñu may la grâce nga inscrire ci liste électorale ñu ne bokkoo disqualifié la ba nii est-ce que loolu tamit. Mhm. parce que loi bi nga xam ne mooy tëgg élection ça s'appelle code électoral loi bi lijjanti wàllu mine ça s'appelle code minier loi bii tëgg yeneen ni Sénégal bés mu nekk nga dégg code yu bëri mbirum élection loi bi koy arbitré loi bi ko tëral mooy code électoral xam nga lu mu wax képp ku nga xam ne daan nañ lu ëpp juróom juróomi at. yow mënatoo falu mënatoo fale. non mais loolu jarul la man APR man nekkuma APR maa ngi nekk AFP. su ma candidat man depuis 2014 laa ko wax mais fi nga laal léegi dama bëgg yeggali may ma tuuti parce que Karim Wade kenn génnewu ko moo génne boppam. képp ku yoon tëj lu ëpp juróomi at képp la wax képp. nga xees nga ñuul nga sant Diop Fall Wade comme moom nga xam ne sama kal la képp rek ku sant euh, kuy sénégalais ñu teg la juróomi at perte nga say say droit civil et politique maanaam munoo fale munoo falu kooku dafa leer nañ c'est la loi qui le dit. non ci sa ci sa candidat en tant que ministre conseiller auprès du chef de l'État nekk responsable jeune euh, de Benno Bokk Yaakaar kan mooy seen euh, seen candidat. mais c' est le président Macky Sall kooku kay mooy géej gi am na ndox. mooy président bi amul adversaire politique jamono jii nii. mais amul adversaire politique. comme kat ñenn ñaa ngi cëpp du ma man ma leen di tudd leen. mais potentiel potentiel adversaire yi ñoo xam mooy Khalifa Sall jamono ji ak Karim Wade ñooñu def ngeen le tout ba jamono ji bokkatuñ ci ci jongante bi. mais kenn deful le tout kenn ku ne gis nga euh, làmb ja boo tey dem dañ lay jox avance war nga entraîner dëgër pour que. arbitre bu ne preuve rek. entraîné wuñu non dama la bëgg wax rek c'est-à-dire booy dem ci làmb da ngay pare. da ngay pare da ngay gis làmb bu ñuy ñëw dañuy pare physiquement pare spirituellement pare mentalement nga xam ne seen i butal la ñuy indaale teg. ça veut dire que ñee pare wuñu. ne da ngay dem ci làmb te mm-hmm. yow am na luñ lay toppee pare wu. élection présidentielle gis nga man bu ma nekkaatoon député danaa bokk ci ñuy proposé ñoo xam ne képp ku mës a luubal alalu askan wi. képp ku ko mos a luubal waroo bokk ci ñuy yóotu réew mi ndax loolu sur le plan moral sax xel du ko nangu nga luubal yow nga yow nii di wax boo ma jëloon tey sa société dénk ma sa kees ma luubal benn yoon un million gëm naa ne ëllëg doon ko mais mais nag bu leen yaakaar ne combat bi dina yombee noonu parce que gis nañ fi phénomène bu bees muy sonko loolu xan xanaa war na leen mën a tiital. kalaasu sax phénomène la yow mais ñun de. Ah, mais mais loolu loolu monsieur le ministre ñëpp a koy waxtaanee jamono jii xam nga ñun nekkuñu si ay si ay jatrib ay dañu war a rey ñi fi nekkoon président de la république dañu war a déedéet parce que loolu. je crois que moom yaakaar naa jamono ji ñëpp ñëpp nangu nañ ko monsieur le ministre kooku moom phénomène xam nga mooy lan. Mhm. fësal li suñu candidat liggéey ci juróom-ñaari at Sénégal loolu loolu laa bëgg nga laaj ma. mais Sonko moom tiital na leen jamono ji. xam nga lu mu xam nga lan moo ñu tiital fi mu toll nii. lenn rek lenn rek am tiital mooy fexe ba wax sénégalais yi ba ñu comprendre li nga xamante ne loolu la président liggéey. loolu mooy suñu préoccupation du keneen du leneen parce que ñoom ñooñu ñëpp ngay tudd amu ci kenn ku ci yem président Macky Sall ci ëmb. ah non mais attention. Sonko ba mu dalee de sorti ba léegi kenn yemul ko ci. Hmm. ci xam kenn yemul ko ci ci expérience état méngoowu cee kenn. kon kon kon su ma la déggee bu baax Sonko da nga ko xaw a mais attention. non xam nga man xam nga man li ma bëgg man dama bëgg nga laaj ma ci sama candidat président Macky sa candidat parce que laaj la ci sa candidat non monsieur le ministre mooy solo bi. non s'il vous plaît monsieur le ministre laaj la ci sa candidat weesuwul li ñu doon waxtaanee ci Karim Wade ak Khalifa Sall. loolu sa candidat def na ko dama la bëgg woon li nga xam ne loolu la sama candidat. def ci réew mi président Macky Sall ba tax Sénégalais yi war ko mun a dénkaat benn beneen mandat. mais bu ñu leen invité sa candidat justement Sonko def ko invité ci débat public ba léegi nangu cee àddu. kon kooku bu waroon leen ko minimiser président Macky Sall du du lan. lan moo tax mënoo mënoo tudd turam justement ça veut dire que fi mu ne nii mu ngi leen di déranger monsieur man rek doy naa ci moom. ci wàllu débat. man cote bu jàkkaarloo man ci wàllu débat ma indil ko. ay ay feneen dinaa la wax dara. dama lay dama lay révéler quelques aspects importants gis nga état dañ koy jànk man mii di wax ak yow euh, def naa juróomi at assemblée nationale bokk na ci li tax wëllu moo ko dafay wax lu amul. moom kan. kenn mu tudd Sonko mais mais mais allez-y. tudd ko bokk na ci li nga xam ne wëllu ma ko dafay wax yu bëri yoo xam ne méngawul nee na fi Sénégal perd na plus de ay mill milliards ci wàllu pétrole ndax euh, commencé nañoo def euh, exportation. <coughs> fàtte na ne bu ñuy def phase exploratoire di seet état doo ko fay dërëmu impôt ndax yow miy fay yow miy seet yaa indi sa xaalis soo amee ñu séddoo soo amul nga ñàkk nekk naa député assemblée nationale mun a député yi dañ leen di euh, duñ fay impôt <coughs> muy ñaareel mbir bu doy waar ndax man dama doon téye sama bulletin de salaire mais di gis ne man maa ngi fay impôt donc muy loo xam ne méngoowul ak la réalité donc dama jàpp ne ko nga xam ne euh, ni muy defee politique mooy politique bu buzz wax loo xam ne ku ko dégg taf taf sa nopp te man gëwuma loolu te bëggam ne politique force de proposition la nekk opposition taxul ngay wax lu amul kii nga xam ne moom nga jàkkaarloo nga bëgg a place am indil ay ay éléments indil ay contre proposition ci politique yi nga xam ne moom lay def man dégg moo ko mu ne président Macky Sall indi na fi CMU man lii laay proposé comme CMU baaxul président Macky Sall indi na bourse de sécurité familiale. président Macky Sall indi na PUDC lii laay proposé. et cetera loolu mooy. mais mais monsieur le ministre est-ce xool est-ce xool est-ce ba ba ñuy wax xool nga livre bi solution jot leen. xool parce que yu ci bëri. livre bi mi ngi ci internet yu si bëri c'est des. c'est des déclarations mais, mais, attention monsieur le livre ngi koy xaw a minimiser te solution la woon est-ce que tamit réew bi tollul foo xam ne. war solution plagié non ñun non réew mi du problème problème mooy am solution. réew mi du problème. réew mi foo xam ne dañuy massacrer ay ay délinquance criminalité. mais délinquance criminalité yow yaa ngi nii di dox tranquillement kenn reyu la. mais yaa ngi koy dégg ci rajo yi ci revue de presse tu sais depuis demal États-Unis li fa nekk sécurité nekkul ci benn réew bés bu nekk nga gis ay tueries c'est des cas isolés ça arrive taxul ñu ne Sénégal c'est un pays qui n'est pas sûr gis nga man ni j'ai j'ai eu la chance dem si yenn dëkk yi nekk naa la sous-région heure bii bu jotee doo génn da ngay tëju ci hôtel bi gis nga boo yéeg ci hôtel bi dañuy yéeg xool sa néeg xool su suufu lal xool say armoire yàlla ñu suturaal da ngay dugg ci dibiteri bi jaar ca tàng naa bële et cetera et nañ sant yàlla te xam ne quand même nous qui est cité en exemple loolu nag boo ko xamulee ñu jàpp ne non réew mi dañ ko war a passer passer et cetera on n'a pas besoin de solution ou alors de ces solutions. <laughs> parce que alors, le Sénégal n'est pas un problème. monsieur le ñu ñëw euh, un peu ci sa chef de parti euh, AFP muy euh, Moustapha Niass est-ce que jotul jamono ji mu jéem a def retrait bàyyi ndaw ñi ñu jiite fi nga xam ne moom mooy. hémicycle parce que ànd na ak Senghor ànd ak Abdou Diouf ànd ak Abdoulaye Wade ñëw ànd ak ki nga xam ne moom mooy Macky loolu mooy nitu valeur la. xam nga nit ku baax dañu koy soxla fépp. politique est-ce que du moom moo bëgg au contraire. Euh, politique amul amul âge. politique moo diine yem boo ci nekkee doo ne man kat am naa soixante-dix ans yàlla wàccal na ma jullee ko war déedéet. politique moom daf koy wax toujours je suis en retrait mais pas à la retraite parce que politique dundu nit di retraité defar sama gox defar sama réew. mais est-ce que est-ce que assemblée nationale bu bàyyi présidence bi keneen mënu ko jiit mais ku ci mel ni yow justement. mais xam nga xam nga monsieur le ministre ñun dinañ jàpp euh, moom fa waroon toog di conseil chef de l'État yow nga diriger assemblée loolu na xam nga xam nga xam nga jiite assemblée euh, du du lu yomb. keneen mënu ko man léegi léegi ah non non non du ma wax loolu parce que amul kenn ku indispensable. mais loolu mais li ma la bëgg mooy c'est un homme d'expérience. Euh, ku am tempérance la ku am dal la. Euh, c'est un diplomate xëy na tollu na fenn ci wàllu expérience boo xam ne xëy na man tollu ma ko man dinaa la wax ne man xëy na am na yenn débat bu ma ko doon présider ñu nga tudd noonu ñoom Sonko ak ñooñu yooyu ñu fa doon def xëy na bu doon man muy xale sama dara tàng ni ñoom. mais mais bu dul yow it bu dul yow keneen mën na ko def justement. non dama la wax ne la xëy na bu doon ñi ñu méngoog man jamono du demee noonu parce que ñun ay ndaw lañu xëy na li ma benn paa doon wax ne ma président Macky Sall bi mu faloo. dafa ne xale yi ah attention de xam nga mag boo ko tooñee xam lu mu lay wax bàyyi naa la yàlla yàlla nañ yàlla àtte mais xale boo ko tooñee mu ne la kànga boor géej effectivement. mais li leerul ci bopp nit ñi régime bu ñëw nga ànd ak moom régime bu ñëw nga ànd moom à l'âge de soixante dix ans ñëpp jàpp nañ ne fu ne nii alternance euh, générationnelle war na mën a am. te loolu yaakaar naa war nga ko mën a nangu monsieur le ministre processus la. xam nga tey yaa ngi nii ñëw taalal ma sa micro. dañ cee àndul. non non yaa ngi fukki at ci ginnaaw fukki at ak tey bokk naa man ci ay produit yoo xam ne moom moo leen defar ci wàllu politique. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mën a ne. non garab ca kaw lay fekkante garab gu tooy mooy pousse garab gu waaye nag gis boo kenn ñu ne eh on décrète aujourd'hui l'alternance générationnelle c'est un processus fauteuil bi du moom moo lay defar yow yaay mat fauteuil bi toog ci waaye fauteuil bi mënu laa defar de ñun bokkuñu ci jàpp ne alternance générationnelle alternance lu lu jot yomb lépp si àdduna processus Euh, monsieur le ministre déggoon nañ la ci euh, élection mairie bu Ndakaaru est-ce que loolu war nga cee mën a indi mën nga cee indi jamono ji ay leeral. alors parce que nañ ne bu ñu defee vote bi ba ngay génn gars yi dañ lay yuuxu. noo non non mais gars yi xam nga euh, Sénégal des fois damay lire yenn aspects yi si damay am lu ma metti parce que nit ñi ni ñu koy relater ak ni mu demee bokkul man bi may génn si maire bi man dama dox ba sama war a dugg xam nga maire bi du zone de non droit. Sénégal Dakar waa yëpp ko bokk ñoom ñu jiite maire bi ñoo war a fexe ba ñëpp ñu fay ñëw ñu ñii ñëpp di ay conseillers ñu assurer suñu sécurité ak suñu tranquillité euh, pour ñëw ci maire bi indi ay nit ñu la yuuxu wala ñu la topp loolu yomb a di. mais loolu mais loolu def nañ la ko man dama génn gis nit ñi di tëpp cëppi te gisu xaw moom lan moo fa jar cëppi cëppi parce que. élection la woon. foofu lu tax ñu ñu lay yuuxu aussi. non man yuuxuñu ma man yuuxuñu ma ñeneen lañ doon yuuxu mais man yuuxu yuuxuñu ma yuuxu lan man je suis j'ai assumé ma position d'opposant ci maire bi dama koy assumé. ba fi ma toll je si un opposant ci ñoom ca ñu nekk comme ñoom ni ñuy assumer seen position d'opposant à l'Assemblée nationale kooku ku nekk da nga ci d'accord bokkuma xëy na si seen plan mais man tamit sañ naa wax li ma xalaat. loolu nag moom kenn moom ma saa yi ma ko xalaatee dama koy wax ki falu ñu ngi koy ñaanal mu réussir loolu solo fexe ba mairie bi mun a dérouler ay projet pour l'intérêt de Dakar fexe ba mairie bi mën a liggéey ak état parce que loolu moo war a nekk le maire de Dakar ne peut pas être un opposant n'est-ce pas au président de la de la République parce que loolu amul sens li am sens mooy ñu fexe nekk benn jàppante pour que projet yi nga xam ne ville am na ko état mun ko ci jàppale ba projet yooyu mën réussir je crois que loolu moo am solo. oui suñu yaay la man yaay la ci man su am Elwadi nii man ak doomam ñoo bokkoon classe contrairement à ce que beaucoup de gens pensent euh, bi mu nekkoon di AFP man nii bokk naa ci ñu ko gën a jege hmm, parti bi mu bokk sax parce que nee na ci la bokk ba tey mais jàpp naa ne c'est une femme de d'une très grande qualité. choix nag politique dans la vie ku nekk yaa koy assumer man jàpp naa man j'assume la plénitude de ce choix là qui est celui bi ñu wane ne man maa ngi AFP maa ngi Benno Bokk Yaakaar moom laay défendre moom laay gëm gëmuma leneen jour bu ma gëmoon leneen ma défendre leneen mais nag tànk day tali ma wala mu banku parce que Mozambique bi ni arab bi wax man gëmuma loolu def nii def nii déedéet moi je suis là-dedans ou je ne suis pas foog naa ne man loolu laa jàpp ne àdduna noonu la war a dem. tout à fait monsieur le ministre euh, temps bi ñu amoon lay bàyyi nga tàggatoo ak euh, internet yu lay gërëm leen sant leen di leen euh, xamal ne coow lu bëri na lool mais léegi pënd bi wuri président Macky Sall nit la ko nga xamante ne liggéey na Sénégal lu am am solo fekk na réew mi kàmb gi xóot lool ndax man mi nekkoon naa député bi ñu koy fal juste dañu doon daanaka préparer li ñu naan la campagne agricole. moo tax bañ ko falee rek dafa daal di dem pare wuti xaalis ndax amul woon daanaka xaalis ci réew mi bu ñu permettre ñu faire face mu ñëw indi ay mesures yu am solo wàññi dund gi wàññi impôt yi ci salaire yi loolu mooy yokk salaire yi indi ay mesures yoo xam ne yu yu am am solo couverture médicale universelle ku feebar faju te état bi di la ko fayal du bees la Sénégal loi boo gis nag wala mesure bu bees boo gis danga koy commencé muy am ay rëq-rëq ngay ji joyanti ba keroog muy baax. bourse familiale yi ñu ngi koy jox bu leen ko xeebal ndax Sénégal am na ñoo xam ne xamuñu woon état dañ ko doon dégg rek wala kër gouverneur wala gendarmerie pour ñoom mooy état tey état am na lu muy tibb ci gafakaam di leen ko jox nekk na loo am solo fi ñuy waxee nii prix pétrole dafa jóg président Macky Sall ne kenn du yokk prix bi ndax boo ko yokkee mu am yeneen incidence kon na état bi continuer di subventionné ñu bàyyi njëkk yi fi mu toll ndax boo yokkee daanaka njëgu pétrole ak gaz dana feeñ ci transport bi. dana feeñ ci njëgu mburu mi ak produit yi nga xam ne yépp dafay nekk ay produits dérivés ci ci wàllu woowu ak yeneen ak yeneen ak yeneen tey li tabax na ay milliers de kilomètres de piste rurale tey am na dëkk yoo xam ne amuñu woon courant électrifié nañ ko am na ay dëkk yoo xam ne xamuñu woon ndox mu neex yóbbu na fa ay teen je crois que euh, Ndar xëy sotti ci juróom-ñaari at def na lu ama ama am solo te jàpp nañ ne. bu ñu ko jàppalee ba mu amaat yeneen juróomi at Sénégal dana jëm kanam te parce que loolu mooy li am solo ndax keneen koo fi indi tamit danaan teg commencé indiwaat ay règlement de compte Sénégal taxawaat ñaari at ñetti at ñeenti at te nag bu ñu fàttee nekk fii lekk xëy na ñaari at daanu commencé di exploiter pétrole bi fi nekk Sénégal nekk un pays pétrolier gazier te loolu nag tax na ñu bëri jàpp ne ñoom ñoo war a toog ci pale bi te li ko waral lépp du lenn lu rek. Euh, di servir yenn intérêt yi nga xam ne ay lobby la ñu maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaan le 24 février incha allah ñu votel le président Macky Sall le choix le meilleur choix. tout à fait mbokk internet yi fii la ñuy yem ak tey mu nekkoon euh, Zator Mbaye nekk ministre conseil auprès du chef de l'État euh, ñu amoon mbégte di ko dalal fii ci Sénégal 7 ci émission tribune politique ñu leen di jox dig daje ci beneen émission fii ci Sénégal 7.